jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, entretien spécial boo xam ni ñu ngi ko amal ak euh, président Amadou Mbengue euh, jiite CDS bu Mbàkke loolu na xam naa dina ko gën a leeral moom mooy lan gannaaw mbokk yi ñu seetaan dañ koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee daal di présenté wu bu ko defee ñu soog a jublu ci waxtaan bi président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Sidi di nuyu ñi nga xam ne ñëpp site bi. yi si yitteel na leen ah ñu ngi koy xool di nuyu en tout cas waa Mbacke yëpp bàyyiwuñu kenn quoi. ñu wax ne nag man maay Amadou Mbengue nekk secrétaire général exécutif bu CDS bu centre de santé bu Mbacke. Hmm. alors euh, président tey ci kuréel boobu noonu di CDS moom la ñuy waxtaanee mais laataa boobu noonu euh, bëgg na noo xam Amadou Mbengue euh, moom dëgg-dëgg dëkk xam na ne Mbacke la dëkk euh, li mu jiite fan la jaar ba jiite ko. waaw li jiite ko rek mooy xam nga kii euh, euh, état dafa def li ñuy wax décentralisation ci biir loolu nag maanaam dafa delloo askan wi lu bari yoo xam ne ñu géré ko seen bopp ci lañ créé nag lu ñuy wax d'abord les comités de santé comité de santé yi lañ créé woon donc bi ñu créé comité de santé yi nag euh, ñu ñoo fi nekkoon depuis 2016 ñu defoon ay élection ñu gagné ko ñu nekk fi bi ñu ko dissoudre nag euh, dañu ñëwaat créé lu bees lu ñuy wax CDS euh, euh, comité de développement sanitaire loolu lañu ñu nag ñu demaat ay élection daanaka dañ ci changé yu bari rek ay coppite ci am dañu jàppoon ne duxu daal loolu lañ dindi ah indi ci yu bees boole ko ndax boo jàppee comité de santé ñaari organe la amoon dafa amoon AG ak bureau rek la amoon bii nag bi mu ñëwee dafa am ñetti organe dafa am organe intermédiaire bu ci nekk dafa am AG am conseil de direction am lu ñuy wax secrétariat exécutif mooy bureau rek dañuy changé tur yi rek kon boo lu moo leen wutale waaw mais boo xoolee liggéey bi daanaka ah, benn la fi ñu nekk ci centre bi daal dañ cee daal dañ ko defaraat daal raxas ko changé ko ñu nekk fii ñun nag avant loolu tamit ñoo nekkoon fii président équipe bi parce que ñu ñoo fi nekk rek euh, nekk nañ président ASC Mbacké fi nekkoon xam équipe maire bi waaw yoon nañ ko toll ak euh, euh, sept à huit mandats am nañ ko ci ac Mbacké bi mu jotee ñëw nañ def avenir tamit foofu yoon nañ ko euh, benn at fusion bi ñuy FC Bawol bi ñu ko defee aussi yoon nañ ko ñaare ak ñetteelu at bi nga xam ne également mandat kii la woon Angloma ñu eggale ko parce que jigi nekkatu fi woon waaw kon donc mën naa ne sax ci sport laal nga ci euh, daal di ñëw dem ci santé euh, yaa ngi doon yëngu tamit ci culture. waaw culture aussi ñu euh, na fii maa fi yoroon li ñuy wax. Euh, ñaani nekkoon fi ak théâtre de verdure yoo xam ne activité yi ñu doon def fépp danaa accompagner xale yi ñuy travailler ci loolu quoi ñi ngi xam dañ doon yëngu ci culture kon mën naa wax ne fànn yooyu daal moom kii naa ci maa fi nekkoon également conseil spécial bu Iba Gueye en matière jeunesse sport fii ci maire bi ay at quoi si le plan politique aussi euh, maa ko nekkoon responsable am au niveau de Ndoyen et des Santiane donc actuellement nag maa ngi ànd ak le DG Galoba moom aussi maa ngi nekk ak moom mu nekk chargé de mission donc di conseiller ma en même temps. d' accord euh, ci carrière boobu noonu xam naa daan ci mos tuuti muy carrière politique bi euh, CDS bi nga xam ne donc yow yaa nekk secrétaire bi euh, nekk ci kuréel boo xam ne ni mi ngi jëm parce que secteur bu doy waar la muy wàllu wér-gi-yaram alors gis na ne Mbàkke jamono jii ñu weesu bëri na coow ci li nga xam ne moom nga nekk jiite ko. waaye waxuma sax ci moom ci kuréel gi rek mais mën na ne ci centre de santé bi balaa sax ci district bi rawatina nga xam ne yow yaa ngi fi xëyee chaque jour effectivement am na amut les difficultés yi nga xam ne ni moom moom moo moom la nit ñi moom moo jaral nit ñi ñuy wax mën nga ñu cee leeral li nga xam ne dégg nga ko. nit ñi daal man li ñuy wax daal en général damaa jàpp ne ñoom dañoo xamul santé parce que man difficulté man gisuma ko boo xam ne majeur na wax dëgg yàlla parce que en matière de dafa am lu am solo loo xam ne loolu lañ koy nattee. muy li ñuy wax les indicateurs indicateurs yi moom la ministère di xool moom la ñëpp di xool indicateurs yi bu amee problème rek parce que centre de santé su amee problème rek day bu bu tax ñuy wax comme ni dëkk bi di riiree fan yi yëpp ñuy wax centre de santé day impacté ci ci ci loolu te loolu amu ci benn impacte amu ko ci ndaxte boo xoolee fii tey Euh, ñaata nit ñoo fi suma la defoon situation mois bi ñaata nit lañ fi consulter médecin ñaata nit ñoo fi def consultation prénatale ñaata nit ñoo fi postnatal ñaata nit ñoo fi entré hospitalisé ñaata nit ñoo fi ñoo fi am doom fii ci ñaata nit lañu lañu xool ñu référé leen ainsi de suite loolu la ñuy wax les indicateurs maanaam loolu la santé doxee ñaata nit ñoo fi décédé ñaata nit ñoo loolu loolu moo am solo parce que nit ñi tant que ñu ñëw di faju di dem di di dem dañuy ñëw am doom dem mais où amul problème peut-être nag li ñuy wax ci des investissements être sur ce plan là matériel day am ay manquement léeg eh, courant bi défectueux <laughs> mu am ay problème xam nga fii dafa rëy charge bi courant bi attanu ko parce que loolu mooy le problème majeur bi njëkk am parce que fii dafa war am poste. Mhm. d' la war a xam nga looy jafe-jafe nag moo CDS bi moo koy réglé mënuñu yooyu problème mhm. liñ ci man la ñuy def te góorgóorlu nañ ci ba gérer problème bi euh, fexe ba def ko trois phases. Mhm. phase bu ci ne léegi ñu ñu limité ko xam nga en général bu fekkee benn phase dafa ëpp liñ ci liñ ci lonk nga jël benn phase rek chargé ko bàyyi yeneen phase yi ça crée des problèmes. day dem ba surchargé nag loolu moo indi muy tourant bi di tëbëkat di sotekat def loolu mais fexe nañ avec sunu spécialiste bi nekk fii muy Pape Diakhaté naa a travaillé sur ça fexe ba équilibré li nga xam ne mooy phase yi ba pare jënd benn euh, kii euh, déedéet kii kii bu mag ni ñu koy waxee disjoncteur boo xam ne day jël euh, à la mesure de ça ñu monté ko boobu ba léegi nag gisatuñ ci wax dëgg yàlla lu ñu lu ñu ay jafe-jafe. lan moo waraloon donc groupe bi fi nekkoon souvent. mu ngi fi. ngir mu ngi fi mu ngi dafa paan. dafa am ay problème injecteur non du ay mois rek la temps yi xam nga boo boo amut courant moom doo am problème. su toogee ko xam nga li ma la wax. léeg-léeg da nga koy taal nag mu sote woo fi dukk mi defar ñëw fii ñoom ñëpp defar ko mu dem mais bu demaatee tuuti mu amaat problème amaat problème après ils nous ont signifié que ne yooyu nag moo xam a jafe waaw ñu ngi koy wër nag mais mais amaguñu injecteur yi nga xam ne moom lañ ci war a def yooyu daal lañ bu ñu ko ci defee fu mu nekk boo ko taalee nii sax dina tàkk dina dem tuuti day day daal di fayaat wala mu mu mu indi beneen problème daal te bëgguñu mu dem ba gën fenn fi moo tax comme loolu lañ xayma nag nañu taxaw wut loolu jéem ko lijjanti pour pour pour monter ko ci mais alors léegi léegi yaa ngi wax ne euh, centre de santé day consulter day nit ñi dañuy accoucher dem ñibbi consultation yi médecins yi di consulter hospitalisation yi mais yooyu yëpp yéen a ngi koy def mais n'empêche que nit ñaa ngi fay ci seen xaalis di ko def di dagg ticket les ordonnances yi yi nga xam ne euh, dotation bi des na fi ngeen koy euh, livrer euh, ñi nga xam ñoom ñooy patients yi. sans comité bi wala boog centre de santé am na xaalis bu war a mën a régler situation yi boo xam ne coow du am tey. non coow amul ñun li ñu war a régler xam nga comité ñun on est régi nous sommes une association de participation à l' effort de santé publique. Mm. régie par le code des obligations civiles et commerciales et nous exerçons librement. et suñu statut dafa am loo xam ne ñun loolu la ñu war a def maanaam la la promo avec euh, l' état et les collectivités territoriales. kon ñun ñoo bokk ensemble euh, dañu war a contribuer à la promotion de la santé loolu mooy la li jiitu. loolu mooy ñekk suñu liggéey santé des des individus des des des familles et des communautés. waaw dañu war a aussi fexe ba def la la la promotion euh, lu ñu koy waxati des populations. ñu ñu fexe ba impliqué leen en tout cas euh, boo commencé identifier problème bi ba egsi ci li nga xam ne mooy solution yi nga xam ne mooy am maanaam mooy rôle bi ñuy def maanaam su amee ku am problème wala nga am dara boo ñëwee fi sant da nga war a seet soo ñëwee fi ñu maltraité la wala ñu teg la lu ñu war a tegu ñun ngay ñëw seet boo ñëwee seet ñun ñu régler problème bi waa autorité yi nekk fii tam bu ñu amee problème ak population yi am na ñun ñooy intervenir ci loolu informer population ni ñu war a taxawee ak nañu comportement bi ñu war a am. mais en principe les gens ne viennent pas pour pour nous voir. beneen bi aussi c' est améliorer euh, la qualité des prestations de service yooyu ak de faire un plaidoyer fexe aussi ba faciliter ñi nga xam ne nii dañoo néew doole amuñu ñu am accès aux soins yooyu. en général ak def plaidoyer boo xam ne dañ koy def pour pour pour euh, financement euh, santé bi donc loolu avec euh, les les collectivités territoriales ak ak d'autres partenaires yoo xam ne ñoom la ñuy solliciter. kon yaa ngi ma doon jéem a leeral seen rôle. waaw li ma la loolu mooy rôle lu CDS quoi. foofu rek la loolu la loolu loolu. particulier ba boobu li nga xam ne moom la gën a mën a ta téye donc donc ci localité bi lan la. li nga xam ne moom mooy wala am nay priorité. xam nga CRS bi li nit ñi xamul CRS bi dafa nekk pour accompagner le médecin chef am na ay fonds yi muy génne yi nga wax loolu effectivement mais loolu tey médecin si nekk fii ñun ñoo leen jël xam nga c'est améliorer les prestations ñaari médecin fi nekk ñu comité bi moo leen di fay. ah du ah? état moo leen di fay déedéet ñun ñoo leen di fay de. man ñu maa leen di fay man je paye bu ma la waxee je pay 6 millions. Euh, par mois loolu mooy euh, prise en charge bi xam nga daf moo tax ma ne dafa am lu muy doxee dafa am ñun texte yi lu muy wax da ngay def lii lii ngay def defal lii defal lii defal lii dafa am ñi nga xam ne ni c'est dañ fi nekk nekk étatique ak am am am contrat état mm-hmm. ñooñu weer wu jot mm-hmm. dañ jox seen pourcentage seen motivation dafa am loo xam ne ci xaalis bi ñu jot dañ koy dañ koy dagg waaw mm-hmm. dañ koy jël ñun suñu xaalis bu fenn bu ñu defee état ba pare dañ koy séddale génne li ñu moom ñoom ñu jox leen seen pour centage kenn ku ne ñu jox ko lim moom ñi nga xam ne nag ay ASC lañ ñun ñoo leen di fay dañ leen a wutal fii de manière particulière dañu am ay salaire noonu noonu lay doxee médecins yi ñun ñoo leen jël keneen bi fi nekkoon nga xam ne projet keneen bi ñun ñun ñun ñun suñu bopp boo demee ci yeneen kii doo ko fa fekk mais ñun suñu bopp ñoo ko ñoo ko kii projet euh, mais projet mais projet Kirène yooyu noonu day dugal xaalis. Euh, projet kireen amul mooy Kirène bi mooy mooy mooy mooy mooy kii xale yi rek non li muy dugal moom vraiment def naa la ñu liñ ci charge bi ñu ci jël moo gën a metti ndax ñaari infirmier lañ jël ki li Kirène jël ñu téyewaat leen fii libéré wuñ leen ko même médecin bi fi nekkoon dañ ko téye woon mais médecin bi dafa mujj dem jànnatu mooy ki fi nekkoon xam nga ko ñoom ñu des fi ba léegi ñu ngi koy gérer boo demee muy pour la malnutrition moo nekk pavillon quoi donc yoo xam ne dañuy neex ñu def mën nañ ko def comme mën nañ ko bañ a def mais ñu comme askan wi lañ fi nekkal yooyu dañ koy def donc bu loolu weesoo nag mu am fonctionnement bi fonctionnement centre de bi carburant bu ñu amul état ñooy joxe carburant bi dem fii liaison bi carburant yi nga xam ne mooy dem euh, kii référence yooyu yëpp c' est des charges gants tey gants d' examen yi ngay gis ñu koy utiliser rek presque de 1 million lu ko jegee la ñuy la ñuy la ñuy def par mois. pour nit ñi mën a liggéey parce que bu ñu ko amul du ñu liggéey dafa yooyu. mais léegi gis nga ñi fi jógee léegi gis nga registre yi ñuy jël. registre yi nekk fi yëpp ñoo koy jënd registre kayit. papier yi ñuy defar. lépp ñun ñoo koy jënd amul loo fiy wax ni bic crayon lii dem ci charge fonctionnement bi. loolu ñun ñoo koy def ça c' est les charges. donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy def ñun sax dañuy dañuy de manière spéciale. Euh, respecté ñu comme à cent pour cent li li tax bi wax parce que même ASC e yi fi nekkoon tey dañ leen waroon a jox ay pour pourcentage mm-hmm. mais dañ leen di fay parce que parce que bu ñu defee tax bi ñi fi nekk ñëpp danañ bàyyi. parce que weer day am ngay amal 15000 ak 12000 ku doon am 60000 wala wala 75000 kooku day daal di bàyyi te stabilité bi nañ ko jàpp te li ñu may ñu mun ko def c'est parce que ñun dañuy defut formation. d'accord euh, mais yaa ngi may wax léegi ne presque par mois da ngay génne salaire 6 millions. Euh, récemment rek euh, coow li bëri woon Mbàkke moom mooy seen euh, jafe-jafe yi am ci ambulance yi centre de santé lu toll ne centre de santé bu Mbàkke ak mën li mu li mu ni département bi toll ngeen kaw ci li nga xam ne moom mooy véhicule d'évacuation où se trouve le problème mën nga ñu cee leeral parce que da dem ngeen ba ambulance yi leen jox yëpp baan mënatu leen dépanner non joxuñu ambulance ñun bi mu yi nekk fii épave la c'est des ambulances qui ont été là depuis depuis belle lurette kenn xamul kañ lañ fi nekkoon c'est des épaves yooyu kenn mënu ko dépanner kenn du ko dépanner yooyu kay dañuy daje ñu ñu ñu ñu demander wut euh, à l'état ñu wut un commissaire priseur ñu jël jëm ko def vente aux enchères am na yoo xam ne ñu ngi Cheikh mais boo demee maire bi mécanicien am na oto yu fa nekk xam nga ma woote fii ne ñëw leen jël seen oto yi dafaa yàgg mais amoo droit laal ko c'est des épaves dootul yàquwut oto yi nag boo gisee tey yi fi nekk ñaara fi nekk wala ñett maximum yoo xam ne mooy tax ñuy wax benn baa ngi daw kon ñaar yi peut-être NMA bi ak beneen bi ñoo nekk en panne NMA bi ma nga fële ñuy defar fii ci wetu préfecture bi eh, beneen bi moom mooy daw masa ak bi ñu may waaw moom la ñu am laala lan mooy problème de xam nga man xaw ma ñoom mécanique ñuy defar ñooy lu ko fa bàyyi dégg naa ko fa bàyyi histoire de de Fontaine man parce que man ba léegi indi luñ ma kii bi quoi parce que directement géré wu ma ko quoi xam nga li ma la parce que man directement je gère pas dossier là. mais tam. si de loolu dañuy wax rek parce que man loolu man kon man mi nekk fii ma xam ko wax dëgg yàlla ba gi maa ngi woo chef de parking bi di ko laaj oto bi dafa ne woon sax nañ fa jaar ñu ànd fa ñu dem ñu ñu ñu xool ko dama waajaa ngi ci moom moo ma ko wax chef parking bi mais man on m'a pas donné de facture fi may wax yow. te saa kon ay waxi kese rek la te ñun on n'est pas obligé ay defari oto ay ay kii oto c'est ça bu njëkk. xam nga mairie moo ko doon defar oto yi bu ñu paanee dañuy jël benn mécanisien boo xam ne bi fii ba nekk gis nga Badiane moo yoroon affaire boobu su ñëwee dañuy def engagement nga dem xool oto bu paan da nga yóbbu foofu rek mu defar. parce que boobu wax naa ko keroog fii bërki démb nee naa leen dafa am li ñuy wax acte de de la décentralisation ci acte 2 bi bu njëkk bu bu bu fonds de dotation yi di ñëw xam nga fonds dotation mooy li nga xam ne ni fonctionnement service yi nekk ci dëkk bi léegi nag état da koy ci mairie bi. mairie moo koy eggale ba pare am ci droit de regard xool nañ koy loolu rek la ca mairie am. xool nañ koy saytule ndax jaar nañ ko fa ñu ko war a jaar ndax dem na loo tax état des engrais bu daan ñëw nag euh, moment clôture bi dañ ko ci tas. dañ naan réparation véhicule 5 millions euh, kii euh, imprimé et registre 2 millions 500 ah produit d'entretien 2 millions ainsi de suite. xam nga loolu bu ñëwee kenn mënu ko wala day dem directement mais ak l'acte trois day ñëw directement ci centre bi xam nga dañ ko daan jox dotation fii da nga naan ay climatiseur ay ventilateur ay consommable booba directement parce que bind nañ ko ba indi ñoom ñoo ko demal seen bopp day ñëw ñu voté ko rek mu ñëw ñu wut mu indi man maa woon fournisseur mairie temps yooyu fii indi naa fi ventilateur indi ay 6 climatiseur kon moom xam moom moo ko doon moo ko doon moo ko doon léegi dañu leen jox ñoom nag maire yi dañoo am pouvoir léegi foo yi bu ñëwee ñoom ñooy waxatuñ leen léegi def leen ko nii def leen ko ñoom ñooy koy defee ñoo koy ñoom nañ koy nañ koy desaari loolu ñoo koy def mais li ma jàpp man daal boobu ba léegi ñun benn at bu njëkk ba ba bañ fi nekkee ah jox nañu ay produits d'entretien jox nañu ay ay matériel de bureau ah, yooyu yëpp jox nañu ay ay ventilateur wax dëgg jox nañu sax climatiseur première mais depuis première année boobu ci comité de santé la woon waaye boobaag léegi moom vraiment lépp comité de santé bi moo koy def dara ñëwatul ci loolu loolu garab yi mooy ñëw ak 3 millions carburant te carburant bu njëkk millions mais léegi 3 millions. garab yi mi ngi ñëw lu war a ñëw. waaw ah, garab yi moom chaque année day ñëw fa parce que loolu. garab yi moom dañ koy ci kaw lay jógee moom. Ah. ñëw directement. Mhm. moom kenn mën ko mën ko laal ñoo ñoo koy directement bu ñu ko jëlee pra fii la ñëw directement moom. Mhm. lu jaar ok ah, ah kon loolu du du du prérogative euh, MCD bi mu kon. waaw mais da ko war a laaj technique. xam nga c'est des problèmes techniques. Ah. mais bu ko maire bi moom mooy. xool nu mu ko neexee rek mu def répartition. parce que bi mu ñëwee loolu njëkk a déménagé dañu wàññi li ñu doon am centre bi jox poste yi ku ne 1 million parce que bu njëkk poste yi 3 millions la ñu am. kon donc le technicien yi war a def ñeneen ñoo koy def à leur place. ah déedéet du kenn mais maire moom mooy yor latitude bi. mais bu la laajut xam nga c'est son conseil xam nga ñu tey. kii nekk fii waaw bu laajut su su ko laajut ah loolu la bu ko laajul def lu ko loolu te mënoo ci dara. parce que c'est le maire euh, euh, euh, ñu ñëw ci ci biir biir centre de santé bi mën na ne seen salle d'hospitalisation yi toujours mën na ne équipé wu leen kon ni ngeen ko war a équipé loolu bi moo koy taxaw wala tamit loolu ci ministère bi la wala ba pare.

te 200000 boo ko multiplié par 30 mhm. rek salaire la. Mhm. man damay am ay jafe-jafe. Mhm. parce que damay jël tey ñun luñ suñu xaalisu pharmacie dañuy jël di ko ci dugal pour mën a boole ko di fay pour mën a fay. parce que du mot boo bëggee def fonctionnement def loolu mooy xaw a nekk jafe-jafe bi ci ñun mais ñun bu ñu bu ñu bu ñu defoon li ñu waroon def rek comité moom du am problème. parce que comité dañ ko ne yow bu weer dee séddale dafa lii def lii def lii def lii mais mën nañ xaalis. non xaalis bu xaaral ma amu xaalis moom mooy que ni amu leen Euh, patient yuy ñëw di consulter wu fay ticket jënd ordonnance. mais li ñuy fay laa wax ne la loolu. mais du egg foofu yow soo demoon fee ñun luy seet lañ yor. li ñu am par mois dama ne boo ci génnee 6 millions yow tey dama ne boo demoon tey fee nga xool recette yi mais xam ne. moom moo tax ma ne amul li parce que xam nga tax non dafa am lu ak xew. xam nga nit ñi sax waruñu woon laaj di laaj centre de santé ñun du ñuy la doon def mooy félicité ñu xam nga mbas mi 2 ans yi on a souffert. mais malaat ñëwatul fenn yow xam nga ne nit ñi gisatoo malaat bu ñëw ci santé ñëpp daw centre de santé bi ndax affaire feebar bi ñun daana ñëw fii duñ jaay sax 20 ticket doo ko doo jaay dara fin du mois bi ñu ngi amee problème mais damay obligé ak le médecin woon ñu neexoon bu doon ay ragal dañuy daw daal di démissionné bàyyi parce que dafa yàgg mais dañuy toog médecin xool ci programme xool fu ñu mën a lijjanti xaalis dañuy xool mais fii mosuñu fi toog at mois bu ñu fayut mais tellement que on recouvre ñu ko mais dañu am ay jafe-jafe. ba mois bi ba mois bi di dee amalu leen kenn salaire ci. suñu amee kenn ñun ba ñu fa toog ak léegi nekk feeg léegi depuis comité ba léegi mosu suñu ameel benn salaire benn nit mosu fi am. du kenn on paye les salaires. alors euh, mais morgue bi nag ban position ngeen ci àll. non morgue maire bi neen da koy tabax. ah mais ci place morgue bi def naa ab rajo lañ fa def. moo tax nit ñi di laaj comme li ngay def c'est très important feel maire bi jël ne da koy tabax def fa euh, rajo bi def beneen côté bi dañuy def euh, bloc day tabax léegi mu waxtaan ak ñun ci affaire morgue bu ñu dindee morgue bi mu ne ñu léegi ñu dem fële xool fa fa ambulance yi nekk ca koñ ba boo ne ba ca ruq ba ñu xool foofu gis ko ñu ne ko kon waxtaan ak moom fii mu ne kon fii nañ ko bëggee mu ne waaw mu ne léegi dinaa ko tabax fii mooy fële boo demee jusqu' à fa fa nekk ca koñ ba. nga xam ne léegi ca biti lay oto ba di gaare bu ñuy dem génn noonu da ngay génn jaar dem. waaw bu amee malaat loolu moom c' est prévu c' est maire wax dëgg yàlla jël na responsabilité dana ko defar. waa yii moom ñëpp teg nañ seen bët mu ngi koy defar. mais mais jàpp ngeen ne ça pose problème que centre de santé bu toll nii amul morgue actuellement. non non duñu posé problème am mu dem yóbbu ko loolu yàgg na amoon na morgue sax moo mais morgue bi dañ ko dañ ko. man li ma la bëgg a wax moom mooy que ni mooy du ngeen du ngeen du ngeen fanaanal euh, ab euh, corps sans vie kon. ah non ku gaañu fii say jël yóbbu la dem yóbbu la ci morgue yi. fekkee moyen amul pour yóbbu ko. ah ñoo la jox oto ñoo la jox demande aucun moyen. d' accord léegi yéen euh, ci ci actuellement moment yi ñu toll am ngeen benn oto bu yees fonctionnement oto bi. dispositif bi mu tegee am nañ ñoo xam ne ñëw nañ appuyer leen carburant ci ay bon volonté CDS bi taxawaayam ci li nga xam ne moom mooy logistique bi ñëw nii am na benn benn gestion boo xam ne yéen a ngi koy maanaam di ko superviser. ah oui ah oui ah oui ah nous dispositions c' une organisation c' que les gens pensent que on organisé. parce que dafa am de parking xam nga ni bu amee responsabilité dañ koy nommé on l'a nommé. ministère suy gère ça. maintenant c' à son niveau d' organiser les ambulanciers parce que ñun li ñu am mooy wax ko li def ku nekk niveau la moom mooy teg bu amee problème nag moom lañ koy sanctionné comme ça que ça se passe. dañu lay sanctionné dañ laa yow comme ni ñu la joxee responsable nga ñëw fii di jël yow vous êtes responsable loola seen patron du moo koy def <laughs> yéen a ñëw fii tey jël ma waaw bu ngeen ci juumee wala ngeen indi ci ay affaire moom da ko bëggoon bu xoolee ah moom il pense c' comme ça que ça se passe c' est de responsabilité genre de parking bi jox comme ça loolu la li ñu def du félicité ñi nga xam ne rek comme ni nga ko waxee ñoo participé jël seen kii joxe ko nangam nangam waa Révage yi aussi neen day ñëw xool oto yi pour jéem ko defar moi seen suivi kon donc Révage yi keroog ñëw nañ fi wax ne ne yaa a y' a y' a ñun les populations a y' a les collectivités territoriales tout le monde dañu war a jàpp ci affaire yi mais dans d' autres villes da ngay dem mais centre de santé waa dëkk ko tabax ñoo important parfois nit ñi dañuy jaxase dañuy jaxase centre de santé ak hôpital parce que dañ ko bëgg a jox gëddëy hôpital. te yor dugg yor gëddëy hôpital. CDS bi am nu kilifa ci centre de santé bi wala ñoom dañoo autonome par rapport ak MCD bi. no li ma bëgg a wax moom mooy que ni yéen. li ngeen di dox ci kilifteef ngeen di doxee wala da ngeen am seen prérogative bopp yoo xam ne kenn yéen yéen dañ au compte dañ leen di topp dañ di exécuter seen i ordre laa bëgg a wax. ah non non non ñun xam nga on est par des textes. ñun texte et on est la tutelle du ministère de la santé. le médecin chef est notre conseiller technique parce ñu ñun duñu ay médecins. médecins yi ñu jël moo ñu wax ñu jël leen. d'accord <laughs> à la mesure du possible moo naan lii baax na ñu jël. moo naan lii ñu jël mais ñun li ñu des moom duñ ci xaar kenn problème débouchage yi dégg naa ñuy wax keroog fi naan dafa ba non ça je dis que c'est pas sérieux quand même affaire fii ñun gis nga chaque jour am na koo xam ne moom lañ jël day def état des lieux di centre de santé bu xëyee day wër xool lépp xool làmp bu tàkkul courant bu coupé euh, douche bu bu fatt ainsi de suite charette fii la ko indi sama bureau tegal ma ko ñu ma xool urgence yi en ce qui li nga wax nii les vidanges là dañ ko j'étais ferme j'ai loolu c'est automatique bu feesee ne me demandez pas allez au guichet ngeen gérer situation boobu su ma ñëwee je régularise parce que loolu c'est fondamental mais nag mënu ne du du ñuy dugal ci affaire yi ci kii du bouché mais bu bouché du soo ñëwee deux doo ko fekk day da ñëw ci màgg parfois nga am problème bu ñëw débouché nga wax leen ñu ne ñu dañuy dem fële dañoo tëj fii ak dañoo def affaire ça c'est des circonstances yoo xam alors merci donc xam naa ne sunu dafay jeex parce que on n'a pas euh, assez de temps euh, ci li ngay jeexalee comme des conseils wala des orientations à donner aux populations yi nga xam ne ñi ngi wax taxaw ñu li ñuy wax peut-être wala danoo bëgg lu leer rek seen bopp. ñu def ci attention parce que mais ñoom dañoo war a ñëw ci ñun. xam nga le ministère ñun lay waxal te ñun amuñu liberté comme ni nga wax léegi tey ñun bërkëraat même pas le ministère est venu ici comme ni ngeen toogee nii on est di leen toog génne leen bagage yi quest que il nous contrôle supervisé lii ni nga ko nii nii la nii ñu nit ñu wax leen problème yi on leur dit non problème mais ils ont le droit non pas ministère euh, population bi ci boppam bi amuñu benn droit ci loolu ñu association ku ci bokk moo ci am droit xam nga c'est une association am ñu ci bokk dafa am assemblée générale am conseil am loolu bu waa àll bu ñu doon wax fi ba cent ans nit ñi du ñu leen déglu mais ñi bokk ci association bi suñ créé la am ñoo xam ne dañuy ñàkk ci football bi génn ci ñu def ne man maa ko teg dañ may contre taxaw di ma saaga wala di wax lu leen neex loolu man saan ma lii baax mais nag li am solo mooy ku am soxla wala nga balaa ñuy def dara ñooñu li ma leen contre balaa ñu ñëw rencontré man mi fi nekkal population yi ci biir santé bi nga waxtaan nit ki ba pare il faut rencontrer les mais doo ñëw sa film di filmer ak di wax xam nga keroog bu ñu demee bay wax ne centre de santé bi amul amul ordinateur amul amul amul amul internet c'est extrêmement grave alors que la base xam nga loolu ku xam dara du ko xam ku xam dara santé du wax loolu parce que centre de santé moo yor moo yi hôpitaux yeeg moom yooyu yëpp ci ça parce que c'est ça fu santé amee problème danaa la ko wax fii si dana impacté ci données yi. parce que man du ma mën a jël lu ñu waroon wax man bu nit ñi doon wax. weer bi day dee ñun fay ñu toog amul médecin amul fi ay infirmier nekk fi ñu ne ah jafe-jafe am na santé santé bi de amul benn médecin nekk fi loolu loolu moom mooy problème wala benn infirmier wala benn sage-femme doo nga fa nekk da nga fay dem benn sage-femme ma fa ne da dem lii lii fa ne yooyu mooy problème mu santé bu amee loolu bu amee rek xamal ne problème am na mais tant que yooyu ñu koy réglé même ak yeeg yooyu yëpp quoi man nag appel bi may def mooy ñëpp nañ ñëw on est tous des frères Mbacké lu may wax maa ngi koy wax keroog nan li Thiès def ci football bi daje biñu demee dañu dañu dañu def seen yëpp def seen dëpp ànd nekk benn tey seen club yoo xam nga ñaata club ba fa nekk léegi ligue ñu nag bu ku dëkk ci dëkk bi rek am nga droit ak boo ñëwee nga laaj su la soo doyee waa bi ñu fal mais mais mais en général bu ngeen def assemblée générale ay lobby rek la ci gars yi di teg nee na ah, ah nee na nee na dañuy dañuy créer seen lobby créer benn benn comité boo xam ne nii jàpp ne ni fii bu ñu duggee rek dañ naan oy telle personne moom moo ñu doy yooyu tamit. déedéet amul lobby. bu dee lii nii mooy campagne tey mu ah. exactement ah. mais ñun. man tey bu ma dara mais damay dem ci ña nga xam ñoo ñoo ñoo am mandat ñoo laay waxal pour pour ma gagner. d'accord. Ah, merci xam nga wax naa ko fii may ma tuuti rek tuuti ma àggale rek xam nga fédération bi fii bi gars yi tëb fii dañoo toog gars yi di wax lu ne Sénégal gi yëpp jóg ñuy bind di wax waaw kii dana dem du fi de troisième mandat gars yi lu ne ñu ko ci ci waa ji waaye mais nan lañ mujjee <laughs> moom mujjee gagné parce ñuy wote rek am solo. d'accord merci en tout cas merci Amadou Mbengue di secretaire général n'est-ce pas euh, CDS bu Mbacké di comité de développement sanitaire alors euh, merci encore euh, mbokk yi ñuy seetaan merci maa ngi àndoon ak ci sama euh, caméra bi Cheikh Bey ci présentation bi di Diakhaté dig daje ci yeneen